bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di tatagalaat ci seen émission bi ngeen bokk ak kenn di émission bii di laaj ak tontu ñu ciy dalal oustaz Hady Niass bu ko defee ngeen di yónnee seen laaj mu leen ci tontu euh, oustaz Hady ginnaaw bi ma la tatagalee rek xanaa ñu dal di soobu ci laaj yi rek ñëw ci laaj bu njëkk bi kii dafay laaj ne dafa euh, euh, jëkkëram dafa génn àdduna bi jëkkëram génn àdduna moom teelu ko yëg muy dépense dépense bi nga xam ne alalu jëkkëram la mu dem ba yàgg mu door a dégg ne jëkkëram génn àdduna muy laaj nag loolu mu doon lekk ci alal jooju ak itam idda ba ndax dafay tàmbali ci ba ma ko déggee wala ci ba kooku gaañoo xasan euh, jëkkëram génn àdduna yëgu ko su boobaa ba mu koy yëg dañuy seet ndax mat na ñeenti weer ak fukki fan su fekkee fi mu ko yëgee ak fi jëkkër ji génne àdduna distance bi mën na ñeenti weer ak fukki fan ténj ga jeex na dootul ko fayati ak ténj kenn du ko fay su fekkee ne booba nag di des ki ñeenti weer ak fukki fan ay fan rek la mu mottali fan yooya su fekkee ay weer la wala weer mu mottali loola li ma ci bëgg a wax daal saa yu ko yëgee rek dafay sof waaye du sosaat ténj la fi jëkkër ja euh, génne àdduna di commencé ténjam déedéet dafa koy sof rek euh, li ko dooree foofa ba muy ba muy matee ñeenti weer ak fukki fan la ca passé du du ko fayati noonu muy ñàkk fayee tenj nga nag noonu lay fayee nag alal ji nga xam ne nag moom da koo dundee ci alal li jëkkëram su boobaa lépp lu ca lekk gannaaw bi jëkkër ji génnee àdduna ba fi mu koy yëgee dafa ko war a fay ñi mu bokk ak miraas mi moom am na ci cër su fekkee jëkkër ji am na doom benn cër rek la am mooy sumun su fekkee jëkkër ji amul doom rubox ba moom la moom sëmul bi mooy huitième bi buñ jëlee alal ji nu mën a toll ñu xaaj ko juróom-ñetti xaaj juróom-ñetteel ba bu doon huit million benn million rek la ci am su boobaa nag su fekkee sonna naa lekkaale cinq cent mille kooku moom dañ koy jox cinq cent mille rek mbiram su yàlla dogalee nag doom euh, amul doom maanaam amul su boobaa ñeenteelu xaaj ba la am bu dee 4 millions wala euh, benn million la ci am 40 million 20 millions ya la ci am 10 million ya kon la ci am su sonnoon na lekk si 7 millions kon 4 millions rek lañ koy jox mbir ma jeex kon daal du fay tenji la waaye dana fay alal ji nga xam ne lekk na ko ci jëkkër ji Xasan hmm. jërëjëf oustaz Adi kii itam euh, ci euh, beneen baat lay laaj ci ñaari baat yoo xam ne daal daf koy dégg te xamul lan moo leen wutale muy alxasanu ak alxusnu léeg-léeg mu taseek bii taseeg bële xasan ñoom ñaar ñëpp njàqare rek ak tiis lañuy tekki waaye bokkuñu njàqare yamuñu digare bépp njàqare koo xam ne boroom da caa bokk di jàmbatu ku mu gis wax ko ay jafe-jafeem boole ko bënn ay bëtam di sotti ay ronxañam di joy kooku xasanu lañ koy tuddee bi fatxi zaay boobaa kon dangay ngay fatxa gi moom la alquran ne alhamdulilahi alladi adhaba an alxasana dafa xasana la appliqué moo tax sax boo baat bi ñetti yoon la ñëw ci alquran bokk na ca faltaqatuhu alu firawna li yakuna lahum aduwan wa xasanan kon bépp njàqare goo xam ne boroom mënu koo muñ ma ngay jooy ku mën a jàmbat li ko dal wax ko ko moo xam jabaram moo xam doomam moo xam mbokkam kooku xasanu lañ koy tuddee bi fat isaay waaye su fekkee ne nag njàqare dal na la tiis dal na la waaye doo ko jàmbat kenn doo ko jooy kenn ki la ko teg dong nga koy jàmbat muy yàlla te moom kenn ko mën a teg bi su boobaa xusnu lañ koy tuddee moo dal yonentu yàlla yaquba moom la alquran ne innama ashku basi wa xusni ilallaahi waxul xasan ni mais wa xusni la wax ko tamit ba ko daa ko dala ca ne wa tawala anhum wa tawala anhum ah, wa abyadat aynaahu wax naa na wa tawala anhu wa qaala ya asafa ala yusufa wa abyadat aynaahu min al fa huwa kadimun ñaari yoon sax yooyu la ñëw ci alquran te ñaar yëpp mi ngi dal ci kaw yonent yàlla yaquba ci naqar tiis yu ko dal waaye ànd ak loolu lépp tawatul kenn mbiram ku dul yàlla mi nga xam ne moo ko ko moo ko ko teg kon xusnu daal mooy njàqare ak nattu ak tiis bu àndut ak jàmbatu xasanu mooy njàqare ak tiis goo ànd ak jooy ak jàmbatu foo li la foo jël wax ko ko léeg nga wax ko sax ku la ëpp problème xasan hmm. jërëjëf oustaz Adi kii itam dafay laaj ne dafay dégg ci borom xam-xam yi ñuy wax ne bépp jur boo xam ne dafa am sell dafa araam nee na sell mooy lan ak ñi am jur yi am sell mooy yan. Xasan loolu sax du waxi borom xam-xam mais waxi yonent bi la. naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akli kulli di naabin min assibaa'i wa kulli di mixlabin min attayri ci benn ci riwaaya yi waaye naa boo demee ci Abdul Bari imaam Abdul Bari dafay wax ne bépp rab boo gis mu am sell ñaareel du am béjjën waaye béjjën ak sell mënuñoo bokk nekk ci benn gàtt boo amee bii doo am bii boo amee bële doo am bële noonu la ko moom noonu la ko firee abi xanifa nag da ko gën a yaatalaat dafa ne moom sell daal lépp luy lekk yàpp rek lépp luy lekk yàpp rek loola lu am sell la lekk ko xaraam na imaam Saafi yu ne kullu zi naab daal mooy lépp luy fàdde xam ne bu gisee doomu aadama dal ci kawam ak gereese ko dal ci kawam lu mel ni gaynde yi ak lu mel ni bukki yi ak tillak yu mel noona moom yooyu la jël ne mooy ye xaraam kon moo tax ye xaraam ci gar yi boroom xam-xam yi dañ cee wuute ñii dañ ko jël ne mooy lépp luy lekk yàpp rek loola am na seetlu lu xaraam la ñii ne mooy lépp loo xam ne bu gisee nit mën na koo fàdd dal ci kawam rek loola lu am sell la lu xaraam la buy Malik nag moom nax yu gi sax da ko def muy tere gi muy tara karaahiya muy tere guñ guñ sib rek waaye duxul tere tax moo tax buy Malik yooyu da ko jël muy def euh, maanaam nax yu karaahiya mais nekkul nax yu tax tahrim xasan hmm. jërëjëf oustaz Aji kii itam dafay laaj nee na dafa doon julli ci benn jàkk euh, ki nga xam ne mooy jottalil imam bi bi demee ba ñu sëlmal daal lu jiitu kooku di sëlmal moom mu sëlmal muy laaj ndax julleem yàqu na wala déet. lim ñu laaj foog ñu laajaat ko ko laaj gi ñu koy laaj mooy ndax moom dégg na sëlmal ak imam bi su fekkee ne dégg na sëlmal ak imam bi moo jottalikat bi ñoo yem kepp euh, ñoo yem kepp at kenn du xaar moromam kenn du warta xaar sa morom su fekkee ne nag déggut jottalik ilimaan ji ki jottali moo ko koy déggale kon moom bu sëlmalee sëlmal ga am na ci sàkk sàkka mën naa ne mën naa am maa jiitu ilimaan mën naa am ñoo ko defandoor mën naa am maa ko njëkk tàmbali mu njëkk maa mottali mën naa am moom ma njëkk tàmbali ma njëkk koo mottali sikki yooyu bu ci xasee am julli ga day yàqu waaye daal kay jottali su fekkee la muy jottali yaa ngi moom a ko jotandoor jërul xaar ko bu imaam sëlmali rek sëlmalal bul xaar jottaleem ga ndax jottali bokkul ci farataay julli bokkul ci sunna bokkul ca man dóob ya mais dafa dugg ci bunta dagan rek boo demee xalil dafa ne wa musammiun ay wa jaasa musammiun waaye nag ba muy dagan mooy bu fekkee ne am nañu jotul waaye bu ñëpp jotee sax nekk fa di jéem a jot li dafay mujj xaraam ñun nag yàllaa ñu natt ñaari bu ñu doon julli sax kenn kay jot li maram loo jot lee jot li foo ko dégg dangaa ngaa jotut jot li ma kaas ba la jot li ma sama portable bi mais boo ko xasee jot kay jërëtul nga di ko jottali kon nag jottalikat ba su fekkee la muy jotali yaag moom a ko jotandoor jërul xaar bu imaam sëlmalee sëlmalal su fekkee la muy jottali nag yow jotoo ko moo la ko mën a jottali xaaral ba ba dégg jottaleem nga door di sëlmal li ko mooy boo ko defee rek sëlmal nga ci sikk te sikk yi bu la ci gaaree maa jiitu imaam moo ma jiitu ñoo àndandoor su julli nga yàqu na faw da ngay julli at xasan jërëjëf oustaz di ñu tëjee ak euh, laaj bi kii dafay laaj ne benn waaye ngibbu dafa nireele jabaram ak euh, euh, doom ak mbokkam bu jigéen ne bu ma la xamee comme sama rakk araam nga ma comme li ma sama rakk araamee ndax loolu dina tax araam am ci wàll bi waaw buy ci masabu abi xanifa de soxna sa xaraam na ko moom dafay wax ne sa soxna boo ko niralee képp koo xam ne sa ko jóg xarmante la sa doom dugg sa sët dugg sa sa tànt dugg sa mbokk mi nga bokk ak ndey mbaa ngeen bokk baay mbaa ngeen bokk ndey ak baay ak lépp lu ca soqee ko yooyu yëpp dugg koo ci niralee ñii ci say soxna kooka soxna si xaraam na la imaamu Malik nag moom dafa ne boo jàngee aaya ji yaay rek la tudd euh, nirale gi tax soxna si xaraam la mooy nga nirale ko sa yaay ji la jur waaye nag boo ko mën a nirale ku dul sa yaay moo xam sa tante la sa doom la sa mbokk la nga ñaaw làmmeñ rek waaye du tax maanaam soxna soosa atte bu ñu tuddee zihaar di ca juddoo nga tax ngay mu lay xaraam ma nga caaju kon yaa ngi may signal ne li ñu mayoon ci waxtu bi jeex na lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la in uridu ila islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu